Merci beaucoup. En ce moment de mon spectacle, je vous demande de vous lever. Nous allons observer une minute de silence pour Djang et Joe Une minute de prière, s'il yenn saa da ngay romb nit du la xam mu naan la eh eh yow eh, wàcc tali bi waay yow yow ci fi waay bu ko faale parce que ki la xam dëkk moom day jaar sa tur nuyu la am na ñoo xam ne dañ doo du ñu dem ta aksi donc nit ko loo xamul bu la feebee bu mu la naqari les Ivoiriens yi disent c'est celui qui te connaît pas qui t'appelle eh celui qui te connaît il passe pas ton nom Pays n'avait jamais vu le lion la chèvre pays. musul Kam nous mel qui de sa vie un jour mu Il di dox ci il bi ba tomber le couple de bu jigéen ak bu quatre mois les couilles. Il Moussa loolu laa waxoon Kongat de keroog lan ma gëj invité arbre de Noël ka Kongat xawma 2010 xawma ma 2000 lan du ta sec mais xalé yi tàccu rek mais nak xool karam paa yi rek ne fii dootuma fi ñëw yaakaar naa caché mais gaynde imagine gaynde 4 mois lekul yàgg bëy bo xamné ne dodu pot de oh. oh am na ñu lekk bëy bi te deewul. Ah, non béy boobu bu romb ji du fi doy kooku dinañ li ciment di daj ci usine bi dina ko daj fii mais béy bi agsi fekk gaynde baa ngi toog nii jabar jaa ngi toog béy agsi oh, oh, oh, oh eh pousse de seen paa yi seen moom yëpp liggéey ngeen toog fii gaynde ko jigéen dugal na ween yi xam nga gaynde ko jigéen bu la bëggee attaqué ween yi doo doo ko gis mais loolu

nous on prend nos garanties si on ment vous mentez <laughs> on embarque dans la même galère donc considérez que tout ce que je dis est vrai ou presque vrai de toute façon ce qui s'est passé c'est que dès que vous avez dit vous griffe ce minuscule de racine de virus d'être fii ñun ñu namm yàpp mu ñëw taxaw fii gaynde ne ko ñëw nammuñu mu ne ko namm nañ yàpp waaw nammuñu dara am na am benn jigéen bu ñëw ci jëkkër ji seen wax yi mooy wax yu ñàkk fu jigéen ñi xewal léegi rek naan ko man rek ci aaw doyoo ba may des mu xëy takkal ko ñaareel na ko comme doyoo xaaral moom problème la. non lépp bi dafa amaale lépp quoi. c'est lépp ci biir lépp. non lépp ci biir lépp bi quoi. mais débarrassement de ce qui est le virus de racine carrée de mu ne c'est eh ma Qui il me connaît pas ki ma comme bougné, il nga xam ne ñëw je vais te prendre encore un pied c'est bon celui-là il est bon parce que li ma bëgg a il faut que ma yor micro ci sama loxo bi vous doy waar Oui, oui, oui. ok excusez-nous hein. je vous ai expliqué que non c'est bon c'est bon c'est bon je pense que ça va aller ça va aller ok merci on a le pied pour le fa patron respectez les nit j'ai été son directeur général

am nu mu def yaayam am fu mu jaar ak papa béy les yeux dans les yeux moo bukki béy départ xam nga xelu bakkan di daw xam ne bu la jàppee da ngay dee béy di daw di daw bukki di ko dàq ba mujj mu yëg ne geenam bi li muy gàtt gàtt gàtt mi ngi laal làmmiñu bukki te mun da geestu bay jekk ba càgg rek mu tëb bay bu mu tëbee bukki xam ne bay dina ko rëcc bukki tëb mais problème bukki mooy bu mu tëbee ci kaw dafa seen ñaari gars yi day frein demi tour li ngay ay yëpp ci wóor Moussa li ngay ay yëpp moom. Kenapa ini bàyyi musicien yi ñu àggale. semua répété séquence boobu waay. mais problème bi mooy béy dafa ne cëpp fekkaat fa gaynde ak jabar ji mu ne leen yéen moom xam naa ne fii da ngeen fi dia titre foncier ñàkk suuf toog leen fi rek seen morom yëpp ngeen ndekete bukkee ngi tok diko ko xam nga wolof nee kay teuru ki kiy ci ay ki tok nan buma ko jappé bo xamé yoon bi lay xaar téggé ko tok wolof ne ki teuru moy ki tok dila xaar ki teggee ci ay waye waaye kéro téggé teggiwut te bukkee ngi koy teuru mais problème bi bukki am Moussa moy li Omar Pène wax ne bo xamal li lay yoon da nga bay li ngay parce que bëy daf ne cëpp bukki dàqaat ko bi bukki di ko bëgg a dàq seen moom tamit segg segg la panthère moom du lekk béy mom, moom bukki la soxla woon léegi nag muy course à 3. Bay ci kanam bukki ci digg bi segg ci ginnaaw ñu jekk ba ag génnu bay ci gemmi ñu bukki gennu bukki ci gemmi ñu segg ñoom ñaar ñepp ñu def mouvement aérien béy ne bërëb ne pay bukki ne bërëb ne pay segg ne bërëb ne pay bay wad bukki gis petits gaynde sec, gis bëti gaynde demi tour ñu dans le dee cadavre immédiatement comme le dit mon ami taxicolteur ce jour-là le lion regarde sa femme il lui dit femme il y a à manger na ko soxna ci jógal taal ah barikal wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan non ça va muy ay dagg yaa muy ay fen wallaay wallaay ndeysaan gars yi bu la xamul yàlla xam na ne gars yi yàlla xam na ne bu la xamul lii rek lañ koy def waaye bu la xamee nga xam ne kun fa yàqul yàlla rek lay dëgg somsi ca noonu bëy am problème parce que bëy ngi taxaw gis bukki dee segg dee bëy comprendre ne moom ki mu doon fonto du moroom yaa problème mooy situation bi ngay toll te dootoo mën a dem dootoo mën a dikk da ngay tagga di tagga tembe bëy jàpp ne ne diggante fii ak kër ga kee rey gaa yi bougé wul bu demee dina ko dab xam nga mooy li taral sàcc bi sàcc bi dafa dugg ci kër gi te kër gi amul bunt mais bi muy dugg kër gi mooy kër yi euh, kokk yooyu mooy fi dëkk dëkk àll yooyu nga xam amul taax ni ko di jël boobu si di waxee dañuy teg nii rek benn bant tek benn kuur sàcc bi dugg jéggi kuur gi dugg ci waaj yenn bor bi yeb genn fekk fu kul <laughs> ci même guddi gi sàcc bi ne wa ku jël cour gi genn faale wu wa ku jël cour gi la wax cour gi fa ne genn <laughs> faale wu mu ne wa man naa nga delo bool yi sax mu dem ci waaj delo delloo yi ñoo fekk fu cour gi ne wa ma ngi genn dégg ngeen kenn waxu ak mom béy situation boobu moom la béy doon dund léegi nan ngay def ak béy situation boobu la béy di dund béy jekk non dafa am benn ci ci sëñ bi gaynde na ko mun a ko sëñ bi maa bëggoon ñu waxtaan ko xam nga xam xam nga njuum te moom du ñàkk waaye nit moom day juum ndax nit ay juum nag waxoon sama nag rabu surtout bu ci tuutee ni bëy yenn saa yi mu li ma doon wax noonu yëpp xam nga ñàkk xam rek ay dóor la wax ay dóor la <laughs> non léegi nii lay dóor fi nekk nii moom ba ngi dóor gaye xool ko bu jàgg na ko mën nag dama bokk ci yax boo xam ne bu nu xiifut du nu lekk oh. te suur na mooy sawu sëgu tey dama bay dem dugg ci dëkk bi rek waa dëkk bi di ko tàccu bay bay may leen tax ngeen may tàccu mu bëgg la rek li nga def ci àll bi yëg nañ ko ni nga rayee bukki ni nga rayee segg xam nga Sénégal da ngay tëj tëju sa biir néeg wax sa wax génn ñu nettali la le dem du ma dikk du ma yónnee te dem dikk maw ma nettali la yàlla ma di béy ñu koy tàccu di ko tàccu béy dem ci yaayam ne ko yaay man de lii laa dund ak gaynde yaay ji ne ko ah koo koy jaay dangay <laughs> doom dangaa dangaa juddu démb waaye ñu ngi juddu barki démb xam nañ njaay mu na ko mais ni def bukki ni mu reyee bukki ak kii mu ne ko waxoo njaaye mu ne ko léegi nag mu ne ko waa dëkk bi di ma tàccu mu ne ko waa dëkk bukki ju la de ku la tàccu de boo weddee laajal yoo loolu ñu lay tàcc ñëpp dañ laa bëgg waaw yow yow ñu koy tàcc ñëpp ça c'est une dédicace à tous les politiciens qui donnent de l'argent aux gens minutes de silence pour Djougay et Jérôme Une minute de prière, s'il vous plaît. ñu toog <coughs> yenn saa yi da ngay nit du la xam mu naan la eh eh yow eh, eh, wàcc tëri bi waay yow yow ci fi waay bu ko faale parce que ki la xam dëkk moom day jaar sa tur nuyu la am na ñoo xam ne dañ doo du ñu dem te agsi donc nit ki loo xamul bu la xeebee boum la nakari. Les Ivoiriens disent c'est celui qui ne connaît pas qui t'appelle. Eh, celui qui te connaît, il passe par ton nom. Bi n'avait jamais vu le lion, la chèvre, Bi. Moussou, comme nous gagne mel, Moussouko kiss de sa vie. Un jour, Mourech, di dox ci àll bi ba tombé ci couple de bu jigéen ak bu góor 4 mois.

Oh. Oh, am na ñu lekk béy bi te deewul. waaw yaa ci jiitu. non béy boobu bu romb ji du fi doy. kooku dinañ li ciment di daj ci usine bi dina ko daj fii mais béy bi agsi fekk gaynde baa ngi toog nii jabar jaa ngi toog béy agsi yoo eh, oh, eh, eh pousse la seen paa yi seen moom yëpp liggéey ngeen toog fii gaynde ko jigéen dugal na ween yi xam gaynde ko jigéen bu la bëggee attaqué ween yi dootoo ko gis mais loolu pour nga gis ko il faut nga ñemee xool gaynde gi moment bi nga <laughs> ah? lépp dañ may nettal may nettal man ba may commencé dama ne léeboon nga ne ma léppoon ma ne amoon na fi nga ne ma daan na am léegi man dama ne amoon na nga ne daan na am kon ñoo ko bokk nga ma wax dama ma ko sa bopp. kon xam nga ni mun na ko wax lépp kat yi dafa ñu de nous on prend nos garanties si on ment vous mentez on embarque dans la même galère donc considérer que tout ce que je dis est vrai ou presque vrai voilà.

jëkkër ji seen wax yii mooy waxi ñàkk fu lay jigéen ñi xew a léegi rek naan ko man rek ci aaw doyoo ba bay des mu xëy takkal ko ñaareel ndox comme doyoo xaaral ma pour ma non lépp bi dafa amaale lépp quoi. c'est lépp ci biir lépp non lépp ci biir lépp bi quoi. du moom mën a doyoo bay des. <laughs> mais débarrassement de cette muscle de virus de racine carrée de mun na ko hee kay ma sama jàmm kii il me connaît pas. je vais te prendre encore un pied c'est bon celui-là il est bon parce que li veux bëgg a il faut que je yor micro yi sama Oui, oui, Bon bu doy Oui, oui. Oui, oui. ok excusez moi je vous ai expliqué que non c'est bon c'est bon c'est bon je pense que ça va aller

jógee na fa wëri bëy tasig bukki mais bëy xam na bukki parce que bukki mosoon na doxantu ci gétt ga am nu mu def ak maamam am nu mu def ak yaayam am fu mu jaar ak bëy les yeux dans les yeux moo bukki bëy départ xam nga xelu bakkan di daw xam ne bu la jàppee da ngay dee bëy di daw di daw bukki di ko dàq ba mujj mu yëg ne geenam bi li muy gàtt gàtt gàtt mi ngi laal làmmiñu bukki te mun a geestu bay jekk ba càgg rek mu tëb bay bu mu tëbee bukki xam ne bay dina ko rëcc bukki tëb mais problème mu bukki mooy bu mu tëbee ci kaw dafa seen ñaari gaay day frein demi tour en kon naa bàyyi musicien yi ñu àggale. waaye répéter séquence boobu waaye. mais problème bi mooy béy dafa ne cëpp fekkaat fa gaynde yi ak jabar ji mu ne leen yéen moom. xam naa fii da ngeen fi am titre foncier ñàkk suuf toog leen fi seen morom yëpp ngeen toog fi rek di ngeen dee xiif fi ngeen di toog rek même problème bay tourné nekkati bukkee ngi toog di ko yeeroo xam nga wolof nee na kiy tëru kiy teggee ci ay ki toog naan bu ma ko jàppee boo xamee yoon bi lay xaar rek teggi ko wolof ne kiy tëru mooy toog di la xaar kiy teggee ci ay waaye bay keroog teggiwut te bukkee ngi koy tëru mais problème bi bukki am Moussa. mooy li Omar Pène wax ne boo xamoon li lay yor nga bàyyi li ngay parce que béy daf ne cëpp bukki dàqaat ko bi bukki di ko bëgg dàq seen moom tamit segg te segg la panthère moom du lekk béy moom moom bukki la soxla woon léegi nag muy course a trois béy ci kanam bukki ci digg bi segg ci ginnaaw ñu jekk ba càgg geenu béy ci gémmiñu bukki génnu bukki ci gémmiñu sekk ñoom ñaar ñëpp ñu def mouvement aérien bay ne bërët ne pay bukki ne bërët ne pay segg ne bërët ne pay bay wadd bukki gis bëti gaynde segg gis bëti gaynde demi tour ñu mbëkkante daanu dee cadavre immédiatement comme le dit mon ami taxi compteur

yàlla xam na ne gars yi yàlla xam na ne buñ la xam lii rek lañ koy def waaye buñ la xamee nga xam ne kun fa yàqun yàlla rek day dëgg ndax du xaj soo si dugal taal taali kaal taali te noonu bëy am problème parce que bëy ngi taxaw gis bukki dee segg dee bay comprendre ne moom ki doon fontoo du moroom y a problème y problème mooy situation bi ngay toll te dootoo mën a dem dootoo mën a dikk da ngay takka dem takka témbe bëy jàpp ne ne diggante fii ak kër ga kee rey gaa yi te bougé bu demee dina ko dab xam nga mooy li talaan sàcc bi sàcc bi dafa dugg ci kër gi te kër gi amul bunt mais bi muy dugg kër gi mooy kër yi euh, kokk yooyu mooy fi ma dëkk dëkk àll yooyu nga xam ne amul taax ni ko di jë bub si di waxee ndooy bànni dañuy teg nii rek benn bant teg benn kuur sàcc bi dugg jéggi kuur gi dugg ci waaj bi yenn bool bi yëpp génn fekk fa kuur gi <laughs> ci même guddi bi ne waaw ku jël gi kenn faalewul waaw ku jël kuur gi laa wax kuur gi fa kenn faalewul mu ne waaw man maa ngi delloo bool yi sax mu dem ci waa ñu delloo bool yi ñëw fekk fu góor gi ne waaw maa ngi génn dégg kenn waxut ak moom béy situation boobu moom la béy doon dund léegi nan ngay def ak béy situation boobu la béy di dund bay jekk <laughs> non dama am benn waay boo xam ne ree ji moo may reeloo bay ñëw ci ci gaynde ne ko sëñ bi gaynde ne ko mu ah, sëñ bi maa bëggoon ñu waxtaan nit moom day juum ndax nit ay juum nag waxoon sama rabu àll surtout bu ci tuutee ni béy yenn saa yi mu li ma doon wax noonu yëpp xam nga ñàkk xam rek. ay dóor la. waaw ay dóor <laughs> léegi nii lay dóor fi mu nekk nii moom béyee ngi dóor gay na xool ko jàgg ne ko man nag dama bokk ci yax boo xam ne bu nu xiifut du nu lekk te suur na mooy sa wërsëgu tey dama <laughs> bay dem bu ci dëkk bi rek waa dëkk bi di ko tàccu béy béy béy béy na lu tax ngeen tàccu mu ne bëgg la rek yéeg li nga def ci àll bi yëg nañ ko ni nga rayee bukki ni nga rayee segg xam nga Sénégal da ngay tëj tëju sa biir néeg wax sa wax génn ñu nettali la le Cheikh Ibra daan wax ne du ma dem du ma dikk du ma yónnee te ku dem dikk moo ma nettali la ndax yàlla ma di béy ñu koy tàccu di ko tàccu béy dem ci yaayam la ko yaay man de lii laa dund ak gaynde yaay ji ne ko ah koo koy jaay <laughs> dangay doom dangay dangay judd démb waaye ñu ngi judd barki démb xam ne njaay mun na ko mais ni def bukki ni reyee bukki ak kii mun na ko wax njaaye <laughs> mun na ko léegi nag mun na ko waa dëkk bi ci ma tàcc mun na ko waa dëkk bukki ju la de ça c'est une dédicace à tous les politiciens qui donnent de l'argent à gens qui les applaudissent. mon frère ils ne sont pas même plus méritants que nous quand je dis parole africaine vous me répondez raconte parole africaine raconte parole africaine raconte un homme courageux ne bat pas les femmes un homme courageux se bat pour les femmes. Merci. Parole africaine. Parole africaine. On a beau marcher vite, on ne peut pas aller plus vite que ces gens. Parole africaine. Parole africaine. Si vous avez tué votre père, ne vous mariez pas. Parce que votre fils vous tuera, c'est sûr. Parole africaine. Parole africaine. lu nit <laughs> dernière parole africaine. parole africaine. parole africaine. si l'éléphant mange une noix de coco laissez-le comme dit mon ami Abacha c'est qu'il fait confiance à son anus. <laughs> aussi une minute de Coran, non partage des livres euh, idée bi mooy dajalee lu ñu am ci ay livres mu tuuti mbaa mu bari ñu dem jox suñu ay rakat euh, yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci àll yi te nga xamante ni bi dañuy soxla lu euh, yokkee seen xam-xamu jàng mais yàlla day dogal duñ ko am donte internet am na fi am na dakaar gaa waaye taxul koy bari ci yenn réew yeeg yu demee noonu mais dafa am benn taxaw seetlu bu ñu def professeur mooy idée bi c'était pour les villages livres yi mais dañu dem ba seetlu ni ñi nekk Dakar sax ñoo gën a yittewoo livre yooyu noonu suñu borom dogal nag club bi nekk lii lycée de yi ñu am ay jëflante yoo nga xamante ni bi ñu ngi koy am ba incha allah livre yooyu dinañ ci jox waa de Bargny bu soobee yàlla ah, donc euh, euh, wax ji di gën a bari ndax def naa bu ñu dégloo docteur Massamba Gueye rek keneen ku waxaat boo deful ndànk sa wax day naax saay ñu ngi leen di nuyu bu baax di am mbégte loolu ci teew bi asalaamaaleykum mm, je voulais demander à Samira de venir parce qu'on a partagé la scène. Il faut l'applaudir très très fort. Euh, moi j'en ai fini. Armand, c'est ce Il est à Sorano. Il est à Sorano. Il joue avec euh, l'ensemble lyrique, il joue avec le ballet. Donc, voilà, il est aussi à Sorano. Il joue avec l'ensemble, il joue avec le ballet. Vous aviez à la régie Hassan Gaye, un excellent opérateur de son, ingénieur de son. Il était certainement accompagné de Diol, n'est-ce pas Mais on a retrouvé aussi un, de, un pensionnaire de Sorano, Ndiawar, qui est de Paris, et qui est là, qui est venu nous rejoindre, qui ne savait même pas qu'on serait là. Voilà, je vous remercie très fortement. Ablaï Semek, euh, man ak moom suñu diggante du diggante xaritoo ni Moussa Sène mel ci la laa mel ci la ma wan loolu laay dund man nag du ma ne kenn yàllaa ngi lay nuyu te gisuma jibril non nit mënut a am ma waxal lu ma gëmul parce que yàlla dafa sàkkal nit nopp nopp amul obstacle directement en contact avec li ci bitti bët en contact bakkan en contact làmmiñ yàlla wutal ko ñaari barrière barrière u bëñ ak barrière u kon làmmiñ bala mooy génn di wax dina bëtt ñaari barrière kon comme noppi am na man damaa xamul lu fen di jariñ comme am nga droit noppi lu tax nit ñi fen moo tax du ma wax loo xam ne sa maam daf ma doon wax ne yomb na ma maam lu jafe mu ne ma noppi di topp ci fen jafe mu ne nga fen rek après nga noppi xam ne da ngay fen mu ne moment boobu moment bu diis la moo tax bañ a fen nag donc Ablaye Sène li may dund ak moom yàlla moo ko xam moo ñu boole on s'est connu euh, sant yàlla dem naa ba tey bari ñu laa bokk y a aucun souci

bi Ablaye posté photo bi mu activité parallèle rémunératrice le président doit sévir sauf que bi mu koy bind bindul Ablaye Seck sama image ci nek man nak dama dul ko xamné nit ñi lañ wax ci réseaux sociaux yi may wax man damay et je lui ai répondu je lui ai dit très simplement il y a des gens tout le monde ne court pas derrière l'argent il y a des gens comme ceux de Bargny Rythme et de aïssé qui font des efforts pour que la culture soit transmise aux enfants et d'autres qui les rejoignent sans leur demander de l'argent. Après, il m'a écrit pour me dire non, directeur, tu as, professeur, tu as mal compris. dama Don tooñ Ablaye Sen, ma bind ko ne ko bi nga koy tooñ bindu turam te Facebook dafay yaatu. lu mel Je bu ko nit defee bu ngeen di inbox ngeen di tooñante mais man sama photo may liggéeyee palais yow sa page Facebook fo toll di Saga Macky Sall di ko xas di def opposition. ba ñëpp xam ko nga jël sama photo aligné ko ci suuf bi attaqué le président Macky Sall dama lay tontu ba Samba di ca Demba te duma politicien nañu ñiy defar nañ ànd ak ñoom defar te ñuy yàq bàyyi yàq ñun demuñu France demuñu fenn fi lañ jànge fi lañ topp te on nous a proposé des postes à l'extérieur on les a refusés

je sais que euh, ñun waruñu ko fay quoi Ibrahima am na mu wax léegi nii euh, man dafa ay référence te dafa bokk si samay bu ma amee euh, bu amee bu ma amee benn benn en tout cas moom dafa bokk sama dafa bokk si mënuñu ko fay cest à moom on peut pas le fay mënuñu ko fay li muy def si ñun ci wàllu xam-xam ci wàllu